moo xam ba ci café bu bëri. café bu bëri. waaw lépp loo xam ne bu ko nit ki dee jël rek. excès lay doon. d'accord rawatina nag ñaar yooyu nga wax muy cigarette ak alcool. ñaar yooyu dafay yàq deret. d'accord day sonal ay sidit. ba tax na bu fekkee ne fukki nit am nañu loolu ñuy wax impuissance sexuelle. ñeenti yëpp. li mel ni cigarette dina koy def. wala alcool. D'accord. d'accord, waaw d' job, Diop. Mhm. Diop solo donc euh, l'utilisation abusive des des excès ah lu ci mel tabac lu ci alcool mën na tax gor yom. Machallah euh, si yow laay desaat Diop rek maa ngi Job, Diop faj bi ngay fajj dang ko don wala dang ko jang. waaw amna ci lo xamne mom. Mhm. Luñ judd walé la. D'accord. Euh ndax euh, fajj dafa am dafa am ay façon yu Hmm. daf ci am lo xamne.

mu ne kon lii war naa ko mën a war naa ci mën a liggéey xaalis. dëgg euh, am ci itam boo xam ne. Mhm. Euh, ànd bi ngay ànd ak rawxaan. Mhm. moom moo lay dee. moom moo lay dee. Euh, am ci ta boo xam ne. Mhm. alxuraan lay doon. nekk yenn aay yi nga xamante day dox ci loolu. nit ki di ko bind di ko di ko di ko joxe. d'accord mhm. donc su ma déggee si biir faj mooy yow si alxuraan ngay faje wala wala rawaan mais fajowoo sunguf faje woo dara. waaw li li ñuy fajee. Mhm. ku nekk. Mhm. Euh, ñu xamee ne euh, mbiram. lii moo ko euh, gàllankoor. boobaa loolu lañ koy fajee. d'accord d'accord. waaye dañuy fajee sunguf. dañuy fajee ren dañuy fajee alxuraan. dañuy faje sax ay tegtal. nit sa dana ñëw ñu diggal ko sarax mu faj aajoom macha allah macha allah si suuf la ki ñëwee di waxtane muy walum awro bu gàtt ak awro bu gudd est-ce que awro bu gàtt mën na mën na indi tali waaw damay ci interrompre ki ci limu wax allez-y allez-y Dioma allez-y bu fekkee dafa ne xale yi télé fo mo tax ñu télé télé bu dé xale da fay euh fo ci ndaw mënul xam inconvénient bi lool di def d'accord bu demee ba magal lay feeñ ok xale boo gis mu am impuissance. Mhm. de feebar. non waxuma ne que xale yi dañuy am impuissance sexuelle. Mhm. bu ñu demee ba nekk mag wax naa ko ci samay biir wax. ba war a am soxna. duñu mën a seen soxna non xale mooy takk soxna.

heure su mënul dara si jigéen. Mhm. daf feebar. Mhm. parce que li koy waral dafa bëri. Mhm. combien combien moo koy waral. waaw maanaam hémorroïde. hémorroïde am ñu koy am duñ ko xam. bu ko defee loolu day delloo awra góor am góor yu bëri fi ne bu ñu simmi ko. dañuy jekk si ak mel ni comme dañoo yóbbu seen awra. dëgg la hémorroïde da koy def. infection daf koy def. xale yu góor yu bëri dañ koy am. bu ko defee. suñuy euh, fu ñu toll di safa saw.

day jàpp sperme góor yàq ko. bu ko defee góor bu sperme am mhm. dana waral mu oyof. d'accord mu ngi mel ni comme mu ngi mel ni mbuus tey. Mhm. nga bëtt ko. li ci mhm. nekk. su fekkee dafa solide. soo bësee day yéex génn. génn si su fekkee nag solidul dafa liquide soo bësee rek day. génn benn yoon si. sperme bu oyof dina waral góor. di néew kàttan. sperme bu oyof day tax góor di néew. kàttan di néew yi waral nag awra bu gàtt. benn. nit ki mën a nekk xale. am gunóor boo xam ne euh, mooy temps xale da ngay gis ñu naan. am na xale da ko sol tubal tubal balaa gunóor di ko màtt. yooyu bu màttee ko xale du màgg. d'accord yooyu du màgg. comme kepp yooyu ñuy wax kepp. waaw d'accord wala ñu mu teel a gaañu mu teel cee gaañu. Mm-hmm. wala ni mu jongoo baaxul. d'accord wala euh, mu nekk koo xam ne. Mm-hmm. Euh, day fawee awram. d'accord waaw waaw wala mu judduwaale ko. Mm-hmm. bu ko defee. yooyu yëpp dana war a awra bu gàtt. d'accord waaw. léegi léegi awra bi bu gàttee ça veut dangay que da ngay am impuissance sexuelle wala. déedéet bokkul ak impuissance sexuelle. d'accord mais am na ñoo xam ne awra mhm. impuissance moo leen jox awra bu gàtt. impuissance moo leen jox awra bu gàtt moo delloo seen awra. d'accord euh, am ñoo xam ne euh, bu gàtt bi. Mhm. Euh, li ko waral si ñoom. Mhm. maanaam di di si fo. wala. Euh, masturbation. waaw masturbation di masturbé wu. masturbé wu. Mhm. wala xale yi tàmm nañ dara. xale mhm. yu góor yi. Mhm. par exemple jigéen di màcc seen awra loolu baaxul ci awra. da koy delloo. da koy delloo. pare <laughs> te xale yu góor yu euh, dañ koy def. macha allah dafa dafa am solo dafa am solo sama sëriñ ma ñëw. saa à que ku jox képp koo xam ne yaa jox sa awra nu koy sax da koy delloo.

du feeñ si ndawam. déedéet non inconvénient la ñuy wax impact après lam la nar a jural. non instant bi ñoo ngi wax ci xale yi nga xam ne dañoo am impuissance. Mhm. xale yi am impuissance képp bépp xale bu ma mhm. ko def. d'accord c'est-à-dire que Bassirou mii amee impuissance nii ba tey d'accord ma de. ma ma ñëw ma ñëw waaw waaw. <laughs> maa ngi ñëw maa ngi ñëw. dee Bassirou mii tey jii dafa am impuissance sexuelle Bassirou mii nga xam ne xale la. Mhm. Bassirou lu ko mënta jox du foo c'est-à-dire dafa am feebar. c'est-à-dire am na hémorroïde. wala dafa am jabet dafa am hypertension wala dafa am ndoxu siti wala mu juddaale ko âge bi mu am loolu moo ko mën a jox impuissance sexuelle képp kuy foo sa ndaw boo demee ba am cinquante ans si la la feebar bi di commencé eh, sama sëriñ da ngay yokk awra bu gàtt wala waaw awra moom mhm. su fekkee nit ki awram dafa gàtt mhm. bëri na ay tegtal mhm. ak lu ñu siy def loo xam ne eh, nit ki dana jot awra bi fu mu fu mu ko bëggee fu ko bëggee incha allah wàññi amul doo wàññi wàññi moom solo eh, sëñ Diop Euh, jinne wala rab euh, dana tax góor tële. waaw damay eggalee kii. kii bi euh, kii bi parce que dafa am ñoo xam dañ leen gëmloo tële. Mhm. dañ leen gëmloo ne da ngaa néew ndax. Mhm. dañ dajeeg jigéen boo xam ne. Mhm. dafa jaar fu bari takoo ko ci ndaw takk nga ko fekk ñi doon séqal. su amee ñoom rendez war a dem si ñoom. dañuy jël ay pompe wala jël loo xam ne dañ koy jëfandikoo def une de temps. yaa ngi may dégg maa ngi la dégg wala jël loo xam ne bu ñu ko diwee seen awra bi yokk d'accord ñu sëyee noo xam ne mhm. naturel léegi ndaw si bu tàmmee loolu mhm. su demee ba am boroom kër mhm. dem ak moom ci yenn minutes yi ci naturellement te naan kii dafa tële ci saa si bu paree rek ko doyalu ma te fekk ne loolu euh, ndaw si moo ko gëmloo loolu mais moom ba mu gëm ko waaw jóg di faju effectivement fekk dara jotu dañ koo gëmloo ne dangaa dangaa dangaa am kii dangaa tële dañ ko loo ba mu gëm ko mm, mm. parce que ndaw si boppam moo tële d' accord ndaw si moom moo tële parce que ah. ndaw si dafa dafa dafa yàgg di seq benn ba ñaar ba juróom waaw te ñii lu ñuy utiliser dafa doon yoo xam ni dafay dafay yokk kattan voilà am na pompe yoo xam ne dafay yokk day yokk am na garab yoo xam ne cosmétique moo koy jaay je parle haut et fort waxuma la pharmacie de mm-hmm. cosmétique waaw góor yi jënd di ko naan nga ñëw daje koo xam ne man la moo benn comprimé mm-hmm. ma def

léegi nag góor ñu bëri loolu dafay nekk seen problème dañuy takk jabar bu mel noonu mhm. ndax man am naa client boo xam ne mhm. jabar da koo mag d'accord mu nekkoon mbuur ma koy traité benn jour ma ne ko yow normalul ma lay jox garab ba heure bii nga may jàmbataat lii mhm. mu ne ma waaw seeg sama jabar mën naa seeg moom ñetti yoon ci guddi gi ba tëdd doyal ma ne ko boo ko toppee léegi mu suul la wallaahi azim waaw ma ne ko kooku noonu mu ne ma ma ne ko dafa feebar ma ne ko même bu yow beneen góor bu la ëpp doole bu ci nekkoon tam li ko dal. Mhm. li la dal moo koy dal. Mhm. yaa ngi may dégg. d'accord euh, yooyu góor ñi nañ bàyyi xel tam loolu. d'accord bañ di waaw mhm. bañ di dem ci sëriñ si. fu ne nga dem fa ne sëriñ si ñoo xamul. wala dem naa ba son gisuma. parfois ñu am koo xam ne ka ñu yor moom moo moom moo moom moo am problème bëgg leen jox problème. moom moo tàmm foo ba roode ba roode. am na ñoo xam ne dañuy jël sax concombre. jigéen ñoo xam ne dañ koy utiliser. effectivement. te xale lañ. Mm-hmm, mm-hmm. am ñoo xam ne dañuy fooy ak seen baaraam. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañuy jënd rëboo. ak a bëre ak a bëre ak a bëre tey si cosmétique yi. waaw ak a bëre si cosmétique loolu la ñuy wax euh, sexe. Euh, kii euh, vibro vibromasseur yi quoi. si si xam naa li ngay wax. nga xam da koy bës rek mu def lu mu liggéeyam. li ngay wax nii dama lay jox benn anecdote. am na benn xale bu jigéen boo xam ni jëkkëram extérieur la nekkoon. muy ñëw indaale ko bu ma ko indaalee ni ko. xam naa su ma demee da ngay soxla sa bopp te bëgguma nga mooy. jox ko appareil bi. bu mu demee dellu si. ñoom ñaar doon am problème parce que jigéen ki neen moom mënutul sentir jëkkër ji mm-hmm. ndax affaire bu mu tàmba mm-hmm. mais léegi xamul na la koy wax ji léegi pour moom jëkkër dafa foog ni moom dafay génn di mooy te mm-hmm. génnul du mooy mm-hmm. jëkkër moo ko jëndal loolu mm-hmm. mu dem ba léegi bu sey jëkkër du am plaisir parce que affaire boobu la tàmm ne dafay yàkkamte jëkkër wàcc xam ne dañ koy jël di ko utiliser fadiga defe naa ne jigéen ñu bëri loolu moo leen poussé à xëy na ñu ci ëpp sax dañuy génn ci li nga xam ne moom mooy seen sëy ndax buñ ne maanaam impuissance sexuelle nañ jël li nga xamné mom moy responsabilité ñu partage ko mhm. du ku góor ki kese mais ku jigen ko aussi day fébar parce que euh, jigen góor buy foo lu bëri mën nako yobé yóbbee mu am li nga xamné mom moy impuissance sexuelle mhm. jigen aussi mën na la yóbbee nga am li nga xamné mom moy ay infection mhm. wala ay feebar mën na la ko jural parce que dañuy foog ne rek euh, tor bi après ci góor ñu la yem mais jigen ñi aussi mën na leen jàpp à ce que ñu def ko parce que façon góor bu ne fadiga nga sey ak mom mom wax nako légui ci sey biir wax da ngay dem yow parfois ba am jëkkër sax sa jëkkër du la satisfaire ndax façon góor bu né di nga sék ak moom kon bu ñu nee impuissance sexuelle rek. Hmm. jigéen am na ci part de responsabilité waaye góor tamit am na ko ci. Fatima daggumal sax mhm. raw ma la sax ak planique ak planification familiale bi nga xam ne tey jii. Mhm. xale jigéen ñi ñoo koy def rawatina ñi amul borom kër. voilà mi que mën nañu seq ak góor sans mhm. pour autant sa protéger ko góor ko noonu man dama e te loolu tamit yow mën nga ko wàll beneen góor wàllaat ko beneen góor mu wàll ko soxnam mu dem ba tële. Mhm. donc yooyu yëpp euh, sama sëriñ day baax yéen tamit ah ngeen see waxtaan ak seen i clients yi. Mhm. ku ñëw seet si la nee naa ne ko est ce que moom mi ngi protégé wu d' abord. Mhm. est ce que moom soxna mi ngi koy jéem a aar. parce que IST dafa nekk loo xam ne mën a tax ku góor ki tëlee. wala képp ku foo boo ñëwee ñu bañ la faj. parce que bu la leeree ne bu ma fooyee ba pare bu ma ah, ah, demee ñu faj. ah, ah bien sûr sëñ Mor xaalis lay wut. gis nañu léegi xale yi euh, euh, nga baal si kàddu gi nag kilifa nga.

est-ce que yooyu tamit nu koy jël di ko booleeg awra ku góor ki du loolu tamit dafay dafay indi tële lu gaaw gaaw ci ku góor ki. waaw loolu bëri na. Mhm. jigéen ñi yu ñu utiliser ñoom la njëkk a gaañ sax balaa moo gaañ ku góor ki. d'accord ndax li ma doon wax sànq si ginnaaw loolu la ñuy mhm. wax euh, jigéen bu dul yëg. d'accord loolu moo koy waral. astuce yooyu noonu da koy indi moo koy waral. parce que li naturellement jigéen bu mhm. fekkee ne euh, wér na. su euh, defee ay préliminaire même utiliser wul dara day am bànneex comme ni nga ko bëggee. dinaa fi baaxee tam loo xam ne. Mhm. naa ko baaxee jigéen ak. allez allez lu mel ni graisse kéwal. graisse kéwal. kéwal waaw jigéen nañ koy faral di utiliser. Mhm. loolu nopp gaaw la ci jigéen téye ko jëkkëram. waaw mhm. loolu jigéen soo sëriñ boobu nag war a koon joxe. waaw lu mel ni graisse kéwal. Uh-huh. jigéen ñi buñ ko amee. di ko utiliser ndax moo gën ñu dem di utiliser yenn yoo xam ne dafa leen di gaañ. dëgg parce que li ngeen utiliser ay produits chimiques la. Mm-hmm. nit ki def ko ci kanamam. Mm-hmm. paré mu jural ko ay jàngoro. Mm-hmm. wala fu mu toll di toy wala infection bo xamné ndax dañ ma koy jàmbat. dëgg la jigéen ño xamné dañ dem bam infection fu toll day toy day toy effectivement dañuy def coton. bu ñu dem ci xew. loolu dafa dem ba metti té loolu fi mu tay nii mën nga dem ci fukki sëriñ ak juróom wala nga dem sëriñ si yëpp doo wér. doo wér kenn du la faj parce que am na lo xam ne da koy mën a dem nekk cancer jox cancer. allahu akbar day am. loolu moo tax jigéen nañuy def kii très attention ci yooyu. Mhm. produit yooyu. yi mhm. ñu koy defaree boo xoolee yëpp. Mhm. day gaañ. d'accord de même que góor bi jël ay ay ay aphrodisiaque nga xam ne balaa moo sëy mu dara. walla naan dara. loolu bu yàggee rek day dépendant ci loolu. tant que jëlu ko du man nekk. waaw euh, kii maanaam bu ko jëlu rek. Euh, psychologiquement. waaw day jouer psychologiquement effectivement effectivement. je comprends Fadiga mbaa xam nga ne jigéen ñu bëri mhm. li leen poussé à ce ñu dem di wuti li nga xam ne moom mooy mhm. euh, affaire yooyu ñuy jël astuce yooyu ñuy jël mhm. c'est parce que maanaam seen ay jëkkër duñ leen satisfaire ndax moom wax na ko bi sànq xëy na seen ndaw dañ ko fooye ba dem nañ ba nekk mag am soxna mënatuñu seen jabar dara seen jabar bëggul dem foo wala bëggul dem njaaloo mu dem wut ay astuce am yoo xam ne xëy na bu ko defee jëkkëram dina ko satisfaire nga xam ne euh, boo ko fayee rek ko takk protoc xala dañ koy dindi waaw ku ñu takk xala moom mm-hmm. bu ñëwee ci saasi moom du ko yóbbuwaale du ko yóbbuwaale déedéet d'accord dañ koy jox saasi day ki nga xam ndoxu siti moo tax mu tëlee itam dañ koy jox garab mm-hmm. euh, ki am hémorroïde ki am diabète ki am tension oui ki am ndoxu siti duñu bokk garab mm-hmm. kenn ku nekk da ngay xam ne dal Euh, nga daal koy saafara. Mm-hmm. fi ne li nga ñaam ndoxu si ni ñu koy xamee. Mm-hmm. Euh, mooy yaram buy tàng bu dëkk. Mm-hmm. seen yaram di tàng. guddi digg lu mu sedd sedd seen yaram day tàng. guddi si lu mu sedd sedd seen yaram tàng seen yaram day euh, tuur ndox bu jegeyaa. bu jegeyoo waa bu jegeyoo nga xam ne dañuy lu di saw di saw di saw ba keroog ñu tëdd. gémmiñ goo xam ne day sofe. day sofe sofe waaw. feebar guddi di génn fu nekk. waaw yooyu yëpp ay signes la yoo xam ne. Mhm. dina waral ne kii ak yax yu metti metti d'accord waaw wala boo xëyee sa yaram diis ba mel dañ la liggéey dañ la sëf. dañ la sëf wala foo toll di sonn. Mhm. te fekk na kenn defu la dara wala guddi gi sax nga manqué oxygène. waaw sooy nooy mhm. muy jafe loolu yëpp ndox si da koy def. ndox si da koy def. bu ko defee ku am symptômes yi. da gis ne du mun dara ci jigéen. da kattanam day néew. day néew macha bu jógee du dëgër. Mm-hmm. wala balaa moo dugal ci soxnaam. Mm-hmm. day jéem di jéem di jéem di jéem heure su bëggee jóg rek. Mm-hmm. wàccaat su bëggee jóg wàccaat. d'accord mën na nekk noonu bu bët set. jóg bi du gaaw. du gaaw bu jógee rek dafay reesaat. day reesaat bu jógee mu reesaat kii soxnaam di jàppale pour mu jóg ko jógal. kooku kooku amul ngóor daf feebar. ok waaw parce que. ok di ko téye sax pour muy dugg sax normalul d'accord Diop parce que bu fekkee ne jigéen bi. Mhm. jigéen bi tooy la. Mhm. bu fekkee dafa foo ku góor ki rek. ku mhm. góor ki mën naa dem ba àgg te du jar muy téye awraam. d'accord waaye yooyu yëpp. ni maanaam xeet tële dafa bëri. am na tële boo xam ne ci ndox la nekk. expert mu nit. dem boobu moo tëleloo am boo xam ne sidit bi la. d'accord ñaare mboolem feebar yi dal ndaw. ci ndox bi lay nekk. d'accord wala ci deret bi mais du nekk ci sidit bi. d'accord sidit bi moom mag lay dal. d'accord c'est bu bousson. Ah, wala c'est du yàgg C'est mu C'est c'est C'est lâché C'est wala dem ba am envie d'accord waaw c'est responsabilité ah, et c'est C'est euh, euh, télé ñaata fan nga koy faj télé mhm. euh, ak C'est doon mhm. C'est doon mhm. jour la C'est nga C'est C'est jour réaction C'est Inch'Allah. les téléspectateurs de la RDV déglu leen sëriñ ah. Oustaz Diop mooy wax nee na képp ku laal ay garabam si jour bi même ngay yëgaat sa bopp te ñu bëre dañoo feebar man mi sax si laa bokk hmm. allez-y Diop waa léegi euh, ba tey dangay hmm. damay delluwaat ci ndaw ñi hmm. li waral ñu si bëree bëree bëri feebar yi nga xamante ne moo leen di tax a néew kàttan ñàkk parce que mag ñi dañ daan def bu nekk jugee duggee ci néegu sëy mhm. ñu ne la ku samp kër da ngay samp njaq njaq mooy mooy ay kii rek loolu lañuy wax njafaan maanaam jël ay reen yoo xam ne mhm. dana waral siti dañ ci yow nga yaam envie ak yooyu yooyu amatul mu lay ak yenn lekk yi amatul mhm. comme par exemple bu njëkk cere yi day am ay mbuumu xudal mbuumu caxat mbuumu saab-saab te yooyu yëpp ay aphrodisiaques la naturel aphrodisiaque naturel la. d' accord d' accord ndax boo xoolee tey. Mhm. Euh, da am rab yi nga xamante ne. Mhm. ñooy lekk yooyu. Mhm. lekk yooyu ñooy ëpp doole. mala yu koy lekk waaw mala yu koy lekk. fi ne mala yu ëpp doole. boo xoolee lekk yi ñuy lekk. Euh, yëpp. ca ca lekk lañuy jëlee doole. macha allah dafa am benn bés may saraan euh, kii télé. ma gis benn rab àll bu tudd le le paresse dafa mm-hmm. taayal ba. Mm-hmm. mënut a dox ay jéego. non non non léegi nag après ñuy expliqué ne bokk na ci dundam bi muy dund. Mm-hmm. xob yi gën a maigre yi nga xam ne amul benn vitamine. waaw lay utiliser d'accord. kon da ngay gis ne lekk dafay am solo ci doomu aadama. amul ferñeent quoi. waaw lu muy lekk amul ferñeent. da gis léegi boo jëndee légume. muy ñaam bi muy carotte muy navet bu mu ci mën doon. soo ko defee sa frigo ñetti fan mu yàqu. te bu jëkk ñaam bi daan na toog doo ko def ci frigo da nga koy teg noonu. waaw ay semaine du yàqu. parce ma dal. ma peese lu nekk ñëw. ay fan soxna si ñoom yëpp yàqu na. kon da gis ne lekk bi ba tey. Hmm. nit ñuy lekk day am inconvénient ci. ci nit ñi dundin bi dundin hmm. yooyu. Ah, hmm. Euh, ba tey encore. nga gisaat aussi ci ni nit ki war a hygiène de vie. hygiène de vie waaw. nit ki tey euh, balaa ngaa sëy war nga léemu. waaw bala ngay sëy da léemu war nga léemu euh, doonu ko baaxee rek nooy léemu bala ngay sëy maanaam fi ne boo wax ne bisimilah <laughs> mhm. euh, a'uuzu mhm. euh, mhm. day indi kii ah, dafa naan bisimilah waaye man lu ma dal ni <laughs> Euh, day am day am. waaw. Mm-hmm. day day même même bisimilah boobu rek. Mm-hmm. dana mat. waaye bi yonent bi jàngale. Mm-hmm. nga xam moom ngay moom la kii lee moom. danaan bisimilah. en bi ka dafa ne bisimilah. Euh, janib allahuma janib seytaane. wa janib seytaane maa razaqtanaa. waaw macha allah waaw allahuma janib bi janib ni seytaane wa janib si la maa razaqtana bu ko defee bu ko defee mhm. dugg ci sëy mhm. yàlla dana ko musal ba rab du ci participer ah, bala ngay seq ak sa soxna nga koy wax waaw bismillah mhm. allah a'uuzu bika allahuma janib ni seytaane wa janib maa razaqtana macha allah loolu heure bu ko dee def rek dana tax du am problème mu waaw sëriñ parfois yëg-yëg bi dafay dafay dafay monter pour loolu nga wax dana dana difficile de non loolu ay baat la rek. Ah. waa même bisimilah rek doy na. ah bisimilah mais allahuma jëri allahuma jannib seytaan wa jannib seytaan maa razaqtanaa ah. loolu bu ko dee def ah. dana dana waral du rab participe see bi sama sëriñ boobu boobu boobu ngay wax noonu difficile nga de man daal bàyyi ma wax bisimilah kon waaw même bisimilah na boobu boobu moom fu mu lay fekk moom ak tam ak tam nit ki bu sëyee ba pare su mu sëyee ba pare mm-hmm. mu raxasu ba set raxas awram ba set mm. léegi daal di jël euh, karité karité ak na di ko maas awraam. d'accord. yooyu itam. Mhm. day dimbali nit ki ci awraam di gën a dëgër e, di gën a yooru. macha allah waaw. ak seddaay bi dem ci baax trop. E, ba tey itam. Mhm. nit ki fu mu seeyee ba ba pare. Mhm. E, na ut ndox. mu naan ko door tëdd. waaw ah, boo seeyee tëdd waaw. d'accord waral mànn yu bi. chaque fois di gën a dund. d'accord ndax boo xoolee. Mhm. sànq may am benn graisse bu ma baaxee. waaw dafa am téere boo xam ne loolu lay jàngale. d'accord téere boobu ay graisse kese lay jàngale graisse bi boo ko diwee ci bu dee damm-damm graisse mhm. sàngam nga utiliser. Mhm. Euh, bu dee frotté graisse sangam bu dee plaisir ci jigéen graisse sangam d'accord léegi nag ma jàngee fa. juróom-ñaari graisse yoo xam ne. pour yokk awra kese la. kese waaw macha allah graisse bi daal moom ngay diw muy muy yokk. waaw loolu crème la boo xam ne dañ ko defar. soo sëriñ ñëw naa la seet si waaw nga xam ne képp ku awram ndaw uh-huh. bu jëlee graisse yooyu uh-huh. di ko jëfandikoo rek awram dina gën a rëy dina gën a gudd dina gën a gudd ndax problème bi mooy am na jigéen ñoo xam ne uh-huh. tàmm nañu awra bu rëy nga takk leen bu fekkee sa awra yooyu doo leen jot doo leen jot boo leen jotul na wuti ko faneen waaw macha allah sëñ jot am na solo soxna ah ku am soxna xanaa si weer boo defee tey suba nga nopp noppalu ginnaaw suba nga defaat xam nga boo tàmbalee soxna ñeenti sëy si benn guddi léegi dina am bés. Mhm. ñeent yooyu dootoo ko mën. dëgg soo ko deful daan da ngaa fay woon. wax nga dëgg. loolu moo tax. sëy bu bëri baaxul. macha allah et puis booy sëy. Mhm. tam koy espacé. Mhm. tu loo mën rek def ko. di naan sàngar kenn du ko jaay doole. jigéen tam kenn du ko jaay doole. xam nga sàngar moom boo ci naanee. soo génnee rek nga xam ne kii dafa naan sàngara. dëgg la jigéen tam am na góor ñoo xam dañuy dox rek nga xam ne kii nii fi ne li muy sëy dafa bëri. <laughs> waaw parce que dañuy ndigg la day dugg. <laughs> tànk yi daal doo ci nekk. dëgg la day day mel Basiiru. waaw loolu moom boo xoo boo leen xoolee rek. di gën a dox nii rek. <laughs> nga xool xam ne kii day sëy lu bëri. Hmm. comme jigéen tam. su ne ji xeetu jigéen ñi. jigéen hmm. boo xam ne. Hmm. taar yi dafa nooy. amul góor bu ko mën a satisfaire. jigéen boo xam ne taar dafa. dafa nooy dafa nooy. waaw ma yooyu di dox am ñeenti dafa am ñeenti yoo xam ne dalee jigéen. moom day bëgg góor. ok. mooy jigéen boo xam ne taar dafa nooy. dafa nooy ba pare wàcc. d'accord wàcc. waaw ak jigéen boo xam ne. fu mu toll day tooy day tooy. waaw yoon seen ko sax xam am. Mm-hmm. am na kay am na am na am na am na jóg. waaw mm-hmm. ñetteel bi. Eh, ak jigéen boo xam ne. Eh. lu mu togg mu saf xorom. lu mu togg mu saf xorom. mu xorom bi ëpp. beneen bi nag dama koy bañ wax. Eh, vexé. <laughs> non non allez-y Diop allez-y allez-y on est là pour sensibiliser. waaw allez-y waaw no boobu naa ko bàyyi rek. <laughs> waaye jigéen yooyu dafa am. nit ki li may euh. dénk daal nit ñi. Mm-hmm. mooy. comme li ma waxoon sànq. Aladji Diop ma bàyyi la xam naa yéen a bu dee moo tax dama koy wax mu xaw a mu xaw a mu xaw a kii. Mm-hmm, mm-hmm. ndax léemu boobu man dinaa koy def euh, jamono bu nekk ndax dafa baax. dëgg la bu ñu ko dese wax bisimilah allahumma janim naa wa janim seytaan maa razaqtana. Mm-hmm. loolu ay baat la rek. dëgg la ki dana dana dox nit nit ki digganteem ak seytaane. seytaane euh, du ko mën a yàqal ndax bëri na ñoo xam ne. day xaartul loolu de. waaw waaw waaw yàqamti ma waral ndax bëri na ñoo xam ne euh, seytaane wala rab day participer seen sëy ndax boo xoolee ñi yóbbu awra mhm. ay baat yi ñuy jatee ba yóbbu sa awra mhm. baat yooyu rab yooyu ba léegi mhm. ñooy téye awra nit muy dellu wala góor day simmi awra simmee nii du gisati dara d'accord man dañ ma koy jàmbat lu bëri donc loolu jinne la jinne koy def macha allah simmee ko nii sax waaw day bokk soxna si waaw wala wala soxna waaw wala mu xëy ni simmeeku men dañuy yóbbu awra bi du gisati dara ba gëlëm gëlëm lu yàgg ba tiit ba yaakaar ne awra bi dootu fi nekk bu xoolee gisaat mu tuuti الله اكبر لولو رب موكاي داف يا موس لاج سانك مي دونو جيخول وون وقتاني افيتيفمان افيتيفمان لول دينا دانا كوي داف موتاخ كي مانا كي مانا كي كي مان لول فوم مون رب نداخ دا ام ньо خامني بو لين جوخاي غراب ويرو ньо ريك دا بو رب موكاي داف دونك كيب كوي فاج والوم تلي ولا امبيسانس سيكسوال فوم nga مانا لا افيرو رب فوم nga مانا لاكو سينو غراب كاسا ngay جوخاي داكو جوم واه باسكو والو فاج باتين بوكو امول منو d'accord Diop d'accord il faut nga am xam-xamu baatin. Mhm. xam-xamu baatin dafa bëri façon. c'est vrai am na ñoo xam ne euh, dañ ko def si ñoom. Mhm. am ñoo xam ne yàlla si boppam moo ko def. Mhm. am ñoo xam ne dañu liggéeyal waa ju baax mu jàngal leen yar leen def si ñoom loolu. dëgg la bëri na daal noo xam ne dana mën a. kii macha allah Diop am na am na solo xam-xam feeñ fi ma bàyyi la nga tàggoo rek. ba pare tam. góor di seeg jigéen fekk setul si si mbaax. da lay tëleloo da lay jox infection. ok d'accord Diop. di seeg jigéen bu setul. Mhm. da koy def. Mhm. Euh, maanaam di sëy mhm. euh, diwoo diwoo ak ah, kii kii karité. karité pour mu gaaw a dugg. da koy noyal. d'accord day tax sa awra day nooy pour nga dugg rek day jafe. day yooyu yëpp il faut nit ki xam am kii am xam tam nan lay gérer. kii euh, foyer soxnaam effectivement xam nooy gérer parce que. mooy tandikul sukar su bëri mhm. bu paanee rek euh, kër gi am problème waaw day ma fi fi ne nii tey mhm. li tax ñu am problème suñu génération mhm. mooy xale yu jigéen ñu bëri léegi da nga leen takk duñu am ndaw waaw waaw effectivement loolu moom fi ne boo xoolee su fekkee nëbboo nëbboo amul rek maanaam dafa dem ba daanaka jigéen ñu bëri effectivement maanaam amatuñ ndaw amatuñu ndaw fóolu waaw waaw dem na boo wax tey jii boo waxul laabaan sax boo ko wax ne la yow da nga archaïque voilà jamono ji parce que li nga war a yàq sëy bi mhm. ak xale bu demee di jàngi parfois am intercal wala war a wàcc mi di mhm. dem ci ay xaritam mhm. foofu lañ koy day dem du am intention bon mais jigéen góor ak jigéen. day am benn lavage de cerveau bu muy. subir waaw ak góor ak jigéen tey wàllum technologie toll. waaw ak góor ak jigéen xale yi ñoo neex nuy dugg lu neex nuy seetaan. donc yooyu yëpp da leen que ñu dem xam lan mooy góor. waaw ak góor ak jigéen comme safara ak caas. Mm-hmm. su ñu nekkee rek. Mm-hmm. seytaane mooy passé moo tax yàlla def ne laa taxatu boo zina. bul sax jege bul sax jege. léegi nag. Mm-hmm. ñàkk euh, kii boobu dana koy def maanaam yàq ndax jigéen ñi léegi jigéen bu xasee sëy vingt cinq ans yeex na sëy mhm. bu xëyee vingt vingt trois ans yeex na sëy normalement seize ans doy na wala ma bàyyi la nga tàggoo rek temps bi a mhm, mhm, am na solo di leen dox yeneen jotaay incha allah rabbi Diop di kontaan bu baax di ñaan yàlla émission bi bokk ci émission yi gën a xam Sénégal macha allah Diop euh, di nuyu sama xarit sëñ Modou di ko wax ne gis naa dal gi uh-huh. gis naa ne itam mën na am dara lu bëri ci liggéey bi macha allah gis naa taalibe gi itam. Mhm, mhm. euh, nañ yaatalante ndax. fi ne li fi nekk ci malade. Mhm. bu sëriñ sëpp doon faj bu Sénégal gi doon faj duñu wër. macha allah maanaam Sénégal. bu ñëpp nekkoon sëriñ. dëgg ah? du tax malade yu wér. macha allah ndax li fi maa li fi nekk ci toobu malade. moo ëpp fajkat yi. d'accord ndax da ngay sax sëriñ boo xam ne. day feebar. di faje kontaan ak gërëm di nuyu ñëpp rek. am na am na am na am na am solo Diop nous sommes pas des donneurs de l'essence c'est juste une question de protection lii laa bëgg a débat d'idées parce que du ñuy gis ne léegi boroom xam-xam yi heure boo leen invité ci plateau mënuñu waxtaan ba xam-xam feeñ ku nekk day yuuxu ku nekk yuuxu mais lii day wane rek jusqu'à présent débat d'idées mën na fi am allez Diop ma bàyyi nga tàggoo kon sëñ Modou ah,